sàngara quinze cigarette kooku mën nañ ko tàqale tomate kooku fekkente loo am du taxaw walla loo dénc mu yàqu sa xaas ñu fekkante kooku amal nañu seen garab nañ prévoir nañ lu néew kattan dañ koy yëngu hmm. dañ ci yëngu bu baax dañ koy liggéey ci alxuraan dañ koy liggéey ci kër akum yàlla ak mbaaxum ndëgam soob na suñu borom du ma yàlla du ma yenant mhm. te yoruma garaatu wali wala xud moo tax kon du ma la mën ne léegi léegi wala suba suba mais dinaa la teg ci yoon yow yaa sa jëm bopp yaa may mujj wax dina félicité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 man nag si kii bi la commenté maîtresse d'un marié waa neex na de neex waaye seen français daal moom moo bari moom français daal bu ngeen ko manoon a wàññi moom si leen ñu gënalee moom français yi moom ñi si xam ñi si xam dafa bëri moo tax sama classe yi leen si xam daal bëri wut waaw français bi daal wàññi leen ko moom ban mën a comprendre film bi. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV man kenn laa ci seen vraiment téléspectateurs yi. série bi dara lu ma ci raw te lu ci gën a lu ma ci gën a neex lépp ci internet bi laa koy seetaanee il m'arrive des fois man nekk guddi gi yëpp di ko téléchargé te damay nekk fu amul euh, réseau damay nekk di ko téléchargé ba guddi gi xaaj euh, may soog ko seetaan yéen benn série raté lu ma bëggoon ngeen ngeen si accentué mooy vraiment. tàmbale woon ngeen ko euh, Marème ak Lalla tàmbale nañ ci ay jafe-jafe dem ba ci biir ñu toog waxtaan mu doon lu rafet te loolu commencé woon na defar couple yu bëri ci société sénégalaise bi loolu bëggoon nañ ngir wéyal ko au lieu mu génnaat beneen Marème Lalla génneewaat beneen kii bëgg a toppaat Marème mu day jaxase film bi. vraiment bëggoon naa ngeen génne ngeen continuer lancé boobu nga xamante ne ñoom ñaar dañu dem ba nga xamante modèle la ñu doon de yeneen problème yi génne feneen ok leneen li tamit mooy vraiment euh, Racky ak euh, Omar vraiment loolu war naa yeew xale yi bu baax a baax a baax a baax xale yi war nañ cee yeew bu baax a baax xam ne bu ñu waxee relation aussi c'est pas toujours penser au sex wala ak leneen lu ci demee kon Euh, kenn ku si ne na xool avenir boppam xool avenir lu nga xam ne moom la ñu bëgg a fonde gëm sa bopp ah, liggéey fighting vraiment man série bi dama koy seetaan bu baax te keroog gis na mel li ñu wax ngeen ni avant dernier épisode vraiment bëggoon naa mu continuer vraiment ngeen continuer ko mu dem ci kanam je vous appelle depuis Kolda jërëjëf good work. waaw salaamaaleykum li xew TV maa ngi leen nuyu ku nekk santam. waaw maa ngi door a seetaan uh, dernier épisode bi waaw léegi man jàngat bi ma ci gis mooy affaire góor ni parce que souvent jigéen ñi la ñuy wax waxu aaw ñaareel yi ñetteel ñeenteel yi la ñuy wax tout le temps mais duñu wax mukk ci jàngatu góor ñi man góor ñi man uh, li ma leen di wax mooy boo leen yoree seen jabar hmm, muy liggéey muy andi ngay liggéey muy andi muy neex seeni biir kër ngeen yor seeni doom ah ngeen fopp il faut ngeen doxaan ba indi seen biir kër di tëdd jigéen bi ci biir seen biir këru jabar yi ba pare ngeen bëgg ñaañoo ñi seeni diggante muy neex waaw xawma ndax góor ñi lañ ci jàngat ci loolu ndax mu ngi noonu amoon na jàmm ci biir këram andi na beneen jigéen mu ngi nii maram lu mu def fànn mare mi lan la mareen def menacé de mort doomam nit ki noo mer mer mer mer mer noo jaaxale jaaxale jaaxale xanaa nag doo toog naan da ngay menacé sa moroom jigéen naan euh, rey nit ki dafa euh, accident mun na am facilement ah? xanaa lii nag góor ñi nag di ngeen ci jël tuuti jàngat. di ngeen jël jàngat parce que boo leen yoree seen seen seen seen kër mu neex seen foyer mu neex ah, ngeen yaakaar ne boo leen andiwaatee leneen dina ko dàq lan moo lan moo jar yëpp ay jigéen di dëkk ci benn kër di xëccoo benn góor ba ba ba ba am fa lan moo ko jar fi lan moo ko fi jar ak ay defante yooyu ñuy wax noonu wala yéen tamit balaa seen sëy balaa mooy neex il faut nga jigéen ñi di defalante di leen xëccoo comme yàpp loolu moo leen neex man de loolu laa gis ci jàngat bi tey waaw loolu laa gis ci jàngat bi en plus de sa biram comme ni ma ko waxee rek leer na ma du moom moo rey pàppam pàpp Jalika moom mii moo rey pàpp biram loolu ma man moom loolu laa ci gis lu ma leer ba leer la loolu laa ci gis waaw léegi xaritu làllabe man nee naa man daal ma sañoon daal ah na moytoo Euh, waa jooju ko moytu parce que kooku moom ay mbiram safuma waaw coofe coofe na trop mais ay mbiram safuma dafa dangereux mais Marème moom lii lañuy wax boo amee jàmm ci sa biir kër góor nga am jàmm ci sa biir kër nga nekk ci sa biir kër yor sa jabar yor say doom muy liggéey ngay liggéey nga ne yow loolu doyu la il faut nga utiwaat feneen di nga ut ba ut loo xam ne waroo ko indi ci sa biir kër loolu mooy jànget bi ma am ci Marème voilà loolu laa am ci Marème léegi nag faanu Marème jël leen du yéen ngeen aawa ngeen eh, ñaareel ngeen pardon ñaareel yi ñoom ñoom ñoo nekk seeni xarit yi jëkkër góor ñi nag di ngeen takk ba takk loo takk narul takk mooy lii waaw ndax paas Marème dina ko fekk si ba pare mun na sax rey doomam léegi bu boobaa kan mooy perte moom ak aawo bi bu ñu jógee ñu naan awo bu baax bu Marème demee fu muy def li mu toogee woon rek mu neexoon ci moom rek moom lay desee waat balaa maa de ñaan waaw euh, wujj di dara bokk wërsëg ban bokk wërsëg bokk wërsëg nit ba mu tey dugg sa biir kër xamal la lu mu lay xamal ba rey say njaboot ah loolu mooy bokk wërsëg man de xaw ma loolu ndax bokk wërsëg la tudd baal mag ci kàddu bi nag beneen aawalaa te man moom ay affaire wujjante moom bugguma ko parce que man lu ma bëgg mooy yor sama jëkkër yor samay doom di leen préserver mais di yor sama jëkkër yor sama doom di soucier wu beneen beneen jigéen fële li ma war a defar ak samay njaboot lii mooy andi accident yu bari ci biir kër waaw lii mooy andi problème yu bari ci biir kër waaw baal leen nag ci wax bi ak sama vidéo bi euh, bu gudd bi mais loolu may sama xalaat merci à vous waaw. yéen waa Lu Xew TV maa leen nuyu di leen bu baax naka ba am ngeen jàmm bu baax ma ñëw wax ci série maîtresse d'un a ah, man de laala laa am ci may wax ak moom parce que man pour man booy defanteeg sa wujj dangay defante pour sa jëkkër ji nga ñaar foon nga nanguwaat ko ci loxo sa wujj waaye fekk nga xamante ne passé sa wujju la nga ci jéem a dugg a ah, bu moom boo ci duggee da ngay des rek boo fekkee ku bandi ku mel ne Marème day lijjanti teg la ne ndax tiital nga ko tiital na la ndax doom dafa sax ci xol boo yàqee viam moom mu ne day rey sa doom kon nga bàyyi viwu jàmbur te lijjanti sa vie moo ko gën man daal loolu laa am ci wax ci bi neex na trop macha allah. ça va salaamaaleykum ça va na ngeen def yéen a am jàmm baax am na damaa bëggoon partage bi léegi ci kii bi daal maîtresse bi jàll léegi naa man daal lan laa moom kaa bu moom moom muy ci Jalika Jalika lu dund yenn say metti ba mu metti mu génnaat ci bëgg a duggaat te yaakaar naa ko comme ni mu génne fa lay duggaat ndax sëy moom na la sa goro bu njëkk ba goro bëgg en plus tamit kii tamit gorob na la koo bëggaat moom bëgg cee duggaat sëy maanaam boo xasee génn ci premier sëy moom defal ndànk deuxième bi dafa war a dàq premier waaye ni ma gisee sëy moom it premier bi sax mooy dàq deuxième bi ah na xoolaat na na jël temps tuuti daal xoolaat réfléchir tuuti ndax xam na ne góoram ay góoram bëgguñu ko ñu ngi ko commencé inte dara xewagut comme d'habitude comme mu njëkk ba rek lay menaat tamit dafa war a patiente daal tuuti xool salaamaaleykum waa Lu Xew TV waa ziar leen lu bare bare bari waaw Eh, série bi nag tey seetaan nañ ko dëgg yàlla neex na trop trop trop xam nga affaire bi nag fi mu gën a méttee moo di Marème fi mu toll nii laal ko piéger parce que copinam am boobu dafa fexe ba xam passé Marème am ay vidéo moom yëppam am preuve bu lekk boobu bu tegu fi mu toll nii affaire yi moom fi mu toll nii moom mooy loolu mais dara Marème moom dina ci génn ci kàttanu yàlla ni moom jàmbaar la moom elle est brave dina ci génn. waaw daal la ma neexee mais nag laal la nag moomit it waroon naa dawal tuuti compréhension parce que nit koo gis ak ci àdduna am nga passé boo xamante ne ni tey bis buñ la ko tegalee rek am lu lan metti ndax ñun ñëpp ku ne am nga jaar-jaar am na yoo xam ne moom pour man du arme daal te fi mu toll nii waxul dara dafa ne pat indi juboo mais arme boobu la téye fi mu toll nii. asalaamaaleykum waa maîtresse man la Fatou Kébé. maa ñëwoon pour participer ci théâtre bi nga xamante ne moo yëngal jamono ji daal waaw di wax ci Marème ak Lalla waaw Marème ak Lalla moom man moom commencement bi moom ñi ngi doon wax naan Marème la Marème la mais man xamoon naa ni Marème fa mu jëm tamit xam naa ko ndax ay balam da koy tiireendoo waaye Lalla moom ku gis tekkam rek xam moom ah dañ ko éduquer ba mu normal waaw teg ko ci place mu xam mooy kan ñëw gérer li mu li mu doon ba mu mat nekk jeeg piir nag waaw xam nga danga gis nit mu ni tekk rek nga yaakaar ni kooko euh, tekk ja ak dof la wala ak ñàkk xam la mais dafa teeylu woon rek pour xam na naka lay jekkoo euh, mareem ak naka la mën a doxalee ak moom ci kër gi moo tax mu ne woon tekk mais xamoon naa ni man euh, drapeau bi laala dana ko mujj nangu waaw mareem nag dina jàngal xale yu bari bu nu gisatee xale bu jig bu nu gisatee nit mu toog ak jëkkëram di gérer mu neex lool lool lool bu nu jël seen bët bi teg ko ca waaw bu nu jëlee seen bët teg ko ca rek erreur mën na leen dal ndax tamit gis naa léegi gis naa léegi xale yu jigéen ñi dañuy ñëw buux la fexe ba nangu sa jëkkër bu ñu nangoo sa jëkkër nag euh, nag fas yéene toog public bu ñu toog ñu ni ndaw si dafa mukkut pooj moo tax jëkkëram wàcc ko fa di doxaani wala mu wàcc ko fa di génn te demewul noonu jigéen ñaa ngi ci seen kër yi di gérer lu mat sëkk waaw aawo yi ñu ngi ci seen kër di gérer lu mat sëkk benn benn ruq boo xamante ni danañ ko bàyyi seen jëkkër lu ñu war a def seen jëkkër rek dañ koy def amul ruq bu ñuy bàyyi mais teewul jigéen ñi ñoom ñoo lay doxaan buñ la doxaanee ñëw nag euh, bëgg a nettali ci seen sa kër bu ko defee ñu jóg nag sol seen daal naan aaw bi defut li aaw bi defut laa loolu amut aaw yi dañoo fees jël seen place gérer seen jëkkër yi lu mat sëkk waaw ku cay dugg nag na nga ñëw dugg ca ndànk boo ca bëggee am place mais boo bëggee ñëw rek pour déjjati aaw ba doo du sotti waaw maa ngi kontaan lool ci théâtre bi chaque jour maa ngi koy suivre neex na ma lool wax dëgg yàlla nañ na ci xale yi di jàng nag bii moom théâtre bi moom am njàng lépp am njàngale la nañ ci jàng bu baax asalaamaaleykum gars yi maa ngi leen ci nekk sa tur sa sant di leen ziar di leen delloo ziar yi ñëpp leen nuyu leen wàccee ku ci nekk sa wàcc waaye naa leen a maîtresse moom tey neex na neex na torop nii macha allah waaye la nag la moom daal moom laay waxal bon na def attention bu baax daate xamul fu muy dugg Marème wax na ko waxu leer nañ dafa soxor day xool li nga gën a bëgg ne ko coppet xool ci di xool ci lee ba boo ñu def très attention ak xarit lalla bu noonu nit doo topp nit ki ba mu sës yow nit ki paaseem sa yoon nekku ci tey sëy ak sa xarit sa xarit lay sëyal du yow lay sëyal même bu doon moom lay sëyal sax wala moom lay wujjal sax ah yoonam nekku ci paaseem te tooñ de ñii tooñ nag ñii tooñ mais xamuñu fu ñuy dugg nag bay boo ñu attention bu baax mais jalika daal jalika yow moom moom daal jalika laa yaram jalika moom amul benn chance moom moom moom daal bi de mais yàlla baax na xëy na dina mujjee am bu neex. salaamaaleykum waa Lu Xew TV. ñu ngi leen di ziar di leen nuyu man nag ma ci waxte yi mooy Lalla moom bu yeboo ñu moytu waaju man waa jooju ñu mewu ko dara bu yeboo bu moytu ko Marème tamit nag li mu ko wax da koy tiital dong moom loolu moom daf koy tiital te Jalika tamit li mu wax papaam moom war ko koo wax loolu moom yoonam nekku ci fi papaam di dugg loolu lu man daal la amoon tey ci lu ma ko lu may wax merci waaw asalaamaaleykum euh, maa ngi ñëpp di ziar ñëpp waaw yéen waa Xew TV et puis di euh, nuñ di euh, di rafetlu série démb bi ah macha allah ah série bi neex na defati ngeen seen manin macha allah waa noonu la seen ni ngeen di jàngale neex na ah mu ngi noonu daal mais daal xam naa ne daal man li ma si jàngat ah, gaynde kenn du ko yee de wax dëgg yàlla wallaahi kenn du ko yee te it ni euh, ñuy wax naan laala xartam boobu ah seen pexe mii bu jubee dina ma jaaxal de waaw te lii lii metti de boo moytul si seen côté lay jóge de parce que yuuxu jib na fuñ ko foogewul daal waaw mu ngi noonu daal doy na waar daal doy na waar waaw ñi xam nga aaw aaw moom day defe ne chaque jour rek mooy mooy roi moo am doole moo nii waaye daal fitna kenn du ko yee mu ngi noonu léegi gis na beneen caractère ci Marème hmm? beneen beneen façon nit tey moo dugg ci néegu Marème xam nga Marème li mu ose ba def fi def li dugga noonu ci léegu laal la wax ko lu ko neex génn mooy ne Marème elle est prête à tout pour faire un connerie jaral naka ka waaw mu ngi noon daal donc euh, tànk bi mu teg daal moom euh, Lalla naka teggiwaat waaw te woote jàmm waaw jàmm dafa baax ci kër baax ci dëkk baax si ñëpp waaw na fitna kenn du ko yee fa dëgg yàlla mhm. parce que it euh, su fekkoonte ne seex amul droit ba ñeenta wala ñeenta yi ku nekk danga naan rek maay aawa day metti loolu moo ñuy xamal na ku nekk boo dee aawa ñaareel ñetteel ñeenteel am nga sa palaas ku nekk xam na sa palaas fi nga war a yem fi nga war a tegu jàmm na ñooy waaw su fekkoon ne ku nekk eh, duñ ne la yow fii nga war a yem dañuy ñëw rek daan ñeenti jabar rek ku mu bàkku ne jabar nga waaye jabar ju nekk dafa am foo war a yem waaw mu ngi noonu te fii àddina la moom ku nekk am na looy nëbb waaw am du ñàkk nag yàlla moom ku bàkku na man sama lépp it euh, mooy loolu mat na ah nga war a ragalaat ndax saa bu ñu xëyee tooñ suñu borom te mu baal ñu donk lépp rekk si si si ñu nag neen la dañu war a baale di jéggale di bàyyi di creuse creuse baaxul loo seet gis ka waaw loo seet gis ka donc daal ma démb bi daal doy na waa waaw lim ñu jàngat bari na si Jalika a papaam ah li mu def noonu doy na waar daal hmm, Moustapha ak Racky man li ma si xaw a jàngat Moustapha ak Racky est ce bokkuñu est ce sëy bi dina am parce que yaa quelque chose daal lu xaw a luus doy na waar daal waaw parce que Moustapha kenn gisul ay parent Moustapha daal man dama dama dama dama ragal ne Moustapha ak Racky est ce que bokkuñu. waa loolu la man ragal na lool daal am parce que sëy bi niñ koy waxee ni est-ce que dina am donc voilà ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm waaw neex na trop fu dëgg yàlla waaw xel yëpp a ngi e, kii yëngatu xel yi ku nekk daal yaa ngi réfléchir histoire Marème bi fan lay yem fan lay yem waa xam nga ko dem ba menacer sa doom mooy lim ko jaral jaral naka ka donc euh, il faut qu'on fait très attention te ñuy bàyyi di creuse waaw te ñuy dawal yërmande di muñ waaw di di di muñalante wasalaam maa ngi leen di remercier bu baax euh, di leen ñaanal bonne journée au revoir. asalaamaaleykum waa maîtresse na ngeen def ma yéen a ngi leen dama bëggoon a indi sama contribution rek ci maîtresse bu dembo bi euh, di wax ne. joxe sama conseil bu gàtt quoi may wax ne Marème dañ ko comme dañ koy xeex di ko lalal ndëgg sërëx man su nekkoon may moom gis nga menace boobu mu menacé laal la tiital na laal la tuuti mais doyul man su ma sañoon xam nga nan lay def waxtaan ak jëkkëram parce que ñoom dañuy jouer loo xamante ne loolu moo am ci société bi li muy li jouer ci maîtresse yëpp dafa am kon lan moo tax euh, film moom. de fois day am lu ko xaw a yàqu tuuti parce que bu toogee di xaar di xaar ba keneen jiitu si noppu jëkkëram rek sëyam day yàqu mais moom bu jiitoo si noppu jëkkëram expliquer ko nekkuñ dañ may menacer si nangam ak nangam te loolu c'est ma vie parce que euh, nu mu tuddati moo jiitu suma diggante ak yow ba mu lool di am xalaa xaw ma woon ne dinaa la xam expliquer ko yëpp de A à Z Cheikh dina comprendre ba lu ba ko ko laal ak Cheikh lu mu munti gis tamit dina comprendre parce que dina xam ne boobu xamul woon Marème mais bu toogee ba nga xamante ne ñee jiitu nañ ko ci Cheikh rek lool du baax day kii day yàq seen te communication dafa war a am ci mariage na nëbbante waru ci am parce que communication mooy lépp. waaw nëbbante warul am ci mariage te léegi nag dañuy nëbb di nëbb di nëbb ba nga xamante ne après da lay indil beneen musiba man nag su ma sañoon si sama xalaat bu gàtt mareem njëkk ci cheikh wax ko cheikh balaa keneen balaa cheikh di ko déggee fenn wala keneen di ko wax cheikh waa kay ñu yendu jàmm. waa salaamaaleykum waa Marodi TV maa leen di nuyu di leen di leen laaj seen jàmm seen jàmm yaram di ñaan sama ojo bi fekk leen si jàmm démb na dama guddee seetaan film bi moo taxoon mënu ma woon participer waaye film bi moom neex na lool lool lool ba weesu neex Cheikh Diagne na moom kenn xamut bu nekkee ci Marème ne yow laa la ma yow laa gën a bëgg bu nekkee ci laal la c'est la même ah xam naa mooy góoru mokk na de xaw ma lañ koy waxee ñaari pooj moom daal kenn du mer bu nekkee ci mareem ni ko yaay gongo bu nekkee ci lalla ni ko yaay gongo ah doy na waar doy na waar neex na waaye mareem na fanko naa ko loolu ko am fulla la parce que biir privé yoonu kenn nekku ci waaw parce que loolu paaseem la paaseem moom paase la lalla am na paase keneen ku nekk am nga sa laal la na day bëgg a dugg ci domaine mareem mareem moo am fulla am fayda fonko naa ko ci na lii moom jigéen day am fulla parce que bu bëggee yab rek taxawal ni ko eh arrête waaw parce que loolu paaseem la avant muy xamanteeg seex loolu yoonu kenn nekku ci yoonu laal la nekku ci ne laal la na làmbi feneen te bali muy def mag du def loolu waaw day dugg ci domaine mareem rek ñun ñaare ñun ñëpp ànd na takku jàppale mareem mareem rek <laughs> fonk naa ko fonk naa ko lool waaye desaan mu film bi neex na neex na trop trop trop trop trop waaw Jalika na léegi moom it kenn ëpp ko problème <laughs> moom problème bum mu jógee rek dem ci beneen ah doy na waar waaye nag kontaan na siyaare naa leen yéen ñëpp ñëpp ñëpp. bon euh, salaamaaleykum première fois mu ci émission bi di wax ne les bi. voilà macha allah neex na trop man dama koy suivre toutes les épisodes mais saata ji Mariam moom ni ñëwee ci kër gi man ñëwuma quoi Mariam ni mu ñëwee ci kër gi moom voilà parce que dafa ñëw fekk kii toog di sëy sëyam mu ñëw dugg menacer jëkkëram et puis avec euh, li ma gën a choqué mooy lu tax mu koy menacer ba pare jaarale ko ci Noura parce que Noura seen petite fille elle est donc yaakaar naa loolu waruñu ko cee mën a dugal parce que xale la te loolu buñ ko ci defee mën naa jur lu jafe-jafe yu bari ci Sénégal. salaamaaleykum yéen a ngi si jàmm waaw ma ne yéen da ngeen a war a bàyyi laal la à chaque fois rek ngeen di wax laal la lii laal la laal laal la deful dara daa bëgg jëkkëram ba jeex tàkk ñaar nit la nit ñi mënut la nit mënut a bëgg a ne. épisode bale passé ku ne gis na lu Cheikh réagir ñëw ci laala ni dama laa bëgg ba jeex tàkk respecté ko kee nag mënu ko respecté ndax moom moom moom moom nekkul jigéen bu baax mareem jigéen bu baax waaw mareem moom lu jigéen bu baax fenn la nekk te Cheikh du ko mës a respecté kooku moom maa leen ko wax ndax ngeen ngeen ko gis moo laala ak mareem tey bu ñu toogoon ñoom ñett laala woo ko danaan bëri jóg bu ko mareem woo woon da koy ñàkkal fayda ah. ngeen topp ñi dañu bëgg a rey yéen ñaareel yi chaque jour naan ñu ay nangam laal def pattaaram lu ngeen bëgg mu nekk ci defan ndax loolu ngeen xam defante rek ngeen xam nit ñi taluñu loolu waaw maanaam dafa am da kii laala dafa am classe xam boppam ña mareem na xamul boppam xamul fu muy teg tànkam góor bu ne xam na ko façon góor bu ne góoru jinne xam na ko ñooñu nag mënoon leen taxaw fii wax ñu nàngam ak mareem dafa nangam dafa nàngam may leen ñu jàmm waaw xool kenn kese lay bëgg bëgg ñaar kenn kese lay bëgg góor ñi nag mënuñoo dem fakkasalu dem fenn ñu waaye xam nañ dañ bàyyi seen kër maram kii dafa pare lan la dafa pare man bu doon jéeg bu xaye di sax sa jëkkër di taxawaalu ba gis keneen boobaa boo ñëwee doo kaas waaye moom ma ngi ci lépp gérer këram gérer njabootam gérer ci kër këram kaw suuf manqué wu dara dégg nga la Seex Jaan wax keroog épisode bi passé lan la manqué wul dara daf ma ëpp sax li ma ko doon doyee kon kay jeex ñaar li dañuy wuti seen bos moo gën ci yéen dama ngeen wuti seen bos sonal ngeen ñu torop ngeen fekkee ménage bu neex nga ñoo dugg si yàq ka salaamaaleykum Lu Xew TV bëgg ma doon participer nag ci maîtresse di wax ni démb série bi neex na torop neex na torop rafetlu nañ ko tamit mais am mere naa ko torop sax parce que fitna yi Marème nekk nii yëpp am mu jël ay photoom jël ay vidéoom envoyé ko euh, copain loolu moom du yoon parce que xarit bu wóoluwee wóolu la benn wóolu gii rek boo jël ay photoom ak ay vidéoom yëpp envoyé la ko war nga téye waroo koo jël di ko envoyé keneen parce que góor ñi moom mii ma gën a xam ñëpp ak daanaka daal ñëpp a góor ñi moom boobu mu jël ay photo jàmbur jël ay vidéo jàmbur di ko envoyé copain am te xamul ba xam seen diggante dina continuer am déet mi ngi noonu mi ngi noonu léegi yor ay ay photo yor ay vidéo am di leen ci chantage moo tax àdduna daal wóorul moom lépp looy def rek war nga koo xool xoolaat ko bu baax a baax doog koo def laala tamit li ma koy conseillé moom mooy patt bi mu defoon boobu ba léegi na ko continuer rek na ko continuer ndax. Euh, tey daal moom ci ndox lañ ko taamoo waaye ci nit la gën a baax mareem tamit moom day tooñ ak lu mënti am waru koy fekk néegam deux fois moo ngi noonu waru koy fekk néegam lu ko bëgg a wax di ko fekk néegam di ko wax loolu tamit du yoonu comme tey neexoowuñu ñoom ñaar juboowuñu benn juboo yi rek waru koy fekk néegam tamit di ko wax dara dafa war a bàyyi bañ tase fuñ mënti tase ci kër gi mën naa wax ak moom mais ñëw rek dugg néegam amul fëgg amul dara ñëw rek dugg néegam ni dangay wax ak moom lu ko fa lal defoon tamit moom mooy tooñ neex na torop nag moom neex na torop waaye am saa daal moom mere naa ko ci lool naa ko ci lool moom wax dëgg neex yàlla mere naa ko ci torop sax ndax loolu moom mburu ko woon parce que moom Marème ay ay ay xarit ay xarit lañ ay xaritu benn bakkan lañ rakki nag ak yaayam kontaan naa ci bu baax comme ni ko yaayam nangulee nii nangu ko may Moustapha ñoom ñaar ñu juboo nekk benn tamit kontaan naa ci bu baax parce que ñoom seen bëggeel daal dafa doon bëggeel boo xam ne daal man su ma koy seetaan moom dafay doon lu ma neex sax dafay mel ni man maa joué film bi dafa neex seen relation ñoom ñaar daal dafa maa neex te bu sëyee tamit ñoom ñaar bu ñu leen mayewee ñu sëy moom dafa may gën a neex moom man ñoom ñaar moom ñoo ci gën a neex. seen bëggee daal neex na ma torop waaw neex na ma lool man kontaan naa ci yaayam comme te nangu naa ànd ñoom nangu na ko may Moustapha rek man kontaan naa ci bu baax a baax a baax. di leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla sama vocal bi yal na yàlla def mu fekk leen ci jàmm ak salaam bëggoon na wax ci série Maîtresse moo mari kontaan nañ si bu baax a baax ah, di wax Marème rek gis nga xarit amatul dëkk bi léegi xarit amatu fi ndax nit day soppeeku nit dafay soppeeku ni ndox di soppeeku moo tax jamono ji léegi kenn jërta wóolu waaw man daal Marème li ma lay wax mooy demal nga toog ak Cheikh Diagne nga waxtaan ak moom wax ko sa passé waaw li passé yépp si ginnaaw nga wax ko ndax li xew avant nga koy xam la woon soo ko ko waxee yaakaar naa ne Cheikh Diagne du ci am benn problème ndax passé moom ñëpp ko am ñëpp am passé kon demal nga toog ak moom nga waxtaan nag moom wax ko lépp bala la fay kenn di la fa jiitu waa lool la ñun nag kontaan nañ si yow ñu ngi lay bége bu baax Marème ñoo ngi ci sa ginnaaw macha allah kontaan nañu yéen a ngi yeete nag waa Mouride yéen it ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax yéen a ngi def yeete bu am solo. bu ama am solo lii dina tax xale yi jigéen yi gën a téye seen bopp gën a fonk seen bopp gën a respecté seen bopp di maytu vidéo yi di maytu téléphone yi tamit ndax da ci am image yoo xamante ni su ko see ba am rek dalay topp di la topp ba ci say sëti sëtaat sax mën na la cee topp kon yéen a ngi yeta bu baax a baax a baax macha allah yàlla na ngeen yokk ba yëg ko kontaan bu baax na ci yéen. man moom Jalika dama neex man moom dama ko fan ndax Jalika ñàkkul fayda tamit ñàkkul fulla ñàkkul personnalité xëy na nag am na ñaari doom mais daf ko amee ci guum ci sëy la ko amee amee ko ñàkk fayda amee ko ñàkk fulla da ko amee ci fullaam ak faydaam te tamit gis ba nekk ci affaire yu ñàkk fayda man dama yaakaar ne moo tax mu nar a dugg ci sëy ndax moo mënoon naa génn ci sëy nekk di nekkat ci leneen ci lu bon wala leneen mais deful loolu dafa nar a duggaat ci sëy man foofu moom waajuri laa ci kontur ñaari yaay daal laa ci kontur yaay ji xawma ak bàjjen ji man moom ñoom laa si kontur mais man ma jële moom dama ànd ak moom laa faan nii li ci des nag mareem ak wujjam <laughs> mareem moom dafa bandi te xamul ne laal la moo ko gën a man dama jàpp ne ñaar ñu ñaar ñu wujje moom dañu ànd rekk nekk benn jéema daal dara seen jëkk comme que seen jëkkër demee ba takk ñaar jabar dafa bëgg am jàmm ak am salaam kon nag nañ dimbali seen jëkkër rek may ko jàmm ak salaam mooy yoon ñaan bokk jëkkër moom ma yaakaar ni bokk wërsëg rek la xale jigéen ñi war a bàyyi wujje mare moom mu bàyyi li muy def di jaay kenn xamul ah asalaamaaleykum wàllu xew tv maa leen di nuyu di leen siyaare di nuyu ñëpp nag waaw ah série bi jàll mo am na solo torop am na solo torop torop bu démb bi daal neex na de ah meeram de tiit na waaye laal la tamit tiit na de mbaa laal la moo jur seex moo jur kii nii looraa ah laal la tiit na de ah tiit naa si man moom moytu seex juru ko de num tiitee nii affaire bi de am na luy ñuul si biir xawma ma la nag ah, waaye neex na de neex na torop rakki moom bësam kontaan naa si moom Moustapha gars yi moom suñu maree moom dina neex waaye daal mere moom mere mii jar na muy tudde laal la de ragal naa de juróot kii seex jurut loora waaw waaw comme ko junj nii aha jaaxal na ma de trop sax jalika moom film bi yëpp da si am na xar rek waaw waaw waaye mama moom it daf ko ko waroon a wax bi xamante nii rek waaw lu yàgg la woon lu yàgg la woon moom xamante waa xamante wu toog moom mooma jalika ñu xamante daf ko waroon a wax ne mus naa dund ak sa papa génn nañ fen buy defar moo gën fen buy yàq su ko waxoon si first time bi konoon lii yëpp du am gis nga fu mu nekk nii lii yëpp moom moo ko def ni daal foos foos bi rek waxal dëgg bi rek dëgg du rey kenn dëgg mooy mujj mooy njëkk kon nag lu munti am rek ñu wax dëgg bi rek moo gën ah am na solo trop waaye tiit na si laal la de man neeram mii jar na si <laughs> trop. am na solo daal série bi daal neex na torop torop torop asalaamaaleykum wa rahmatullah série Lalla bi ak Marème bi maa ngi leen di siyaar ak euh, Cheikh Diagne Cheikh sama doom baay maa ngi lay siyaar bu wér wax dëgg yàlla seen série bi neex na macha allah lu bari nit ko ci jàng muy loo xam ne Sénégal di dund wax dëgg yàlla man amul benn ci épisode boo xam ne dina ma raw ndax wax dëgg yàlla série bi daf ma neex daf may fàttali lu bare bëri loo xam ne nii Sénégal yi ñu ngi koy dund moo tax dama koy bëgg di seetaan tous les jours dama ci jàngat lu bëree bëree bëri bëri wax dëgg yàlla waaw mu diggante laal ak euh, Marème nag moom wax dëgg yàlla diggante boo xam ne la wax dëgg yàlla moom euh, du mën a yomb parce que société sénégalaise ñoo mënul dund ab ñaareel bu ñëw ci biir kër. am nu mu fay mel te bu boobaa am na nu mu fa ñëwee rek moom lu bari dañ ko koy teg loolu moo tax waaye muy lalla muy marem kenn ku nekk war na mën a dawal compréhension boo xam ne nii neen xam ne dafa am lu leen boole li leen boole mooy jëkkër jëkkër na bu leen boole kenn ku ne am na lu war a mën a sàmmal moromam parce que marem ni ñëwee si kër gi it bett na lalla ndax Lalla peut-être yàgg na ak seex miinal seex lool seex miin ko waaye góor moo toll foo xam ne bu demee ba bëgg wut ñaareel ba wut ko ba andi ko wax dëgg yàlla bu amul taxawaay bu dëgër rek ñaareel bu dafa ne mareem na foofu la toll léegi wax dëgg yàlla it moom it euh, xarekat la parce que li mu nekk jaral na ko bëgg na ko wax dëgg yàlla lu nekk ñu ngi koy koy gàllankooree pour moom fi jamono gi mu toll nii fi mu toll métti na ci moom waaye nag ah nañ dawal loo xam ne nii leen rek dana man a ko quoi parce que it ñaar ñu bokk jëkkër kenn ku nekk buy gëstu say sikki morom rek bu amul sens dëgg-dëgg rek ñoom ñëpp mën nañ dem am ci problème te dafa doon dëkk boo xam ne dëkk bu ndaw la te yaatu génn yaatu bi su boobaa kenn ku nekk boo amee ku la ngemb rek. mun na lu ñu tukku ba li nga li nga xamal marraine ni xamal ko laal la loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax. yéen waa Makarant siyaar naa leen bëgg si jàmm bu baax ah li ngeen defati na solo neexati na neex na torop waaye laal la defal attention defal attention bu baax marraine bari nay pexe te loolu ñu naan. ku la dàq ci nga ëpp koy balit du mujj fenn de bii fi mën naa mujjee dal ci sa kaw nag metti lool defal ndànk sa nga waaw Marème moom ñi mën a ci lim nekk te nag dëgg-dëgg nag fii nag ñëpp am paase moom jaar-jaar fii ñëpp ko am waaw ku nekk ndaw gu nekk am nga jaar-jaar moo xam nag bu rafet ba wala bu ñaaw ba waaye jaar jaar moom am na waaw ku nekk nag boo ko seetee foofu ku nekk li la yàlla séddee nga jël li nga moom ku nekk liñ la séddee nga jël ko waaw passé moom ñàkk ci doomu aadama ji ñëpp am passé benn bi tamit benn bi tamit maa ngi ñëwaat ci kii Jalika Jalika Marème yàq na foofu tamit benn diggante mel naa ko trop mere naa ko torop ndax yàq na diggante mën naa diggante bi mën naa bañ a yàqu sax mais dina am lu mu wàññi ci Jalika waaw ndax Jalika xaritam bi doon na ko génnee moom ci lu bari di ko defal di ko lii mais confiance boobu mën na kaa bañ a amati ci moom waaw mën na kaa bañ a amati ci moom cent pour cent bi mën na bañ a nekkati ci moom daal dina wàññi ci moom xam naa te moom liñ ko def métti na ko torop ndax moo ngi doon dem ba ba mu jaral muy xaru kon metti ko waaw Marème dafa teeyut dafa wara a teey di def attention ci yu bëri waaw yenn saa moom dafa teeyut daal lu koy dal yu bëri ëppala ko yóbbe nit ki dangay dal teey waaw teey dafa baax ci nit teey waaye yow loo nit jël rek ne ko rajax loolu baax loo xamal nit ki soo meree loolu baaxul boobu nit baaxul waaw nit ki da denc xamal nit ki ñaaw di sóoraale ëllëg moom mu xamal la lu ñaaw tey kat waa ji nii mu photom yooyu mu gardé tey su ko dugaloon ci Facebook bi ah gel bee dal ci jalika dal ci bu boobaa dina metti ci côté waaw nit ki da ngay sóoraale bi ko gut waaw jëlu papaam la woon nekkatu ko yàgg na na nëntu ci boobu diggante liggéey bi lañuy wax nañ wax ci liggéey bi mel ni takkantaa nag mu ciy dugal paase jàmbur moom it daal nag kenn munta tàgg mareem ba tawte nag mareem teeyal tanga regle teeyal teey loo ko jënde jan ko de tey nga yaa ngi rajax rajaxee ka téel téel rek teeya waaw gis nga chaque jour foofu la la la di mane laal la dafa teey jiiñ waaw te teeg li muy def dara déranger wu ko ci li moo tax mu la tegal rek dina ko jouer ndax da ciy dal teey ci yow nag teeyoo teeyoo daloo dina fekk bi nga ko fekk ji néegam noonu mënoon naa ñàkk sax e am lennoo koye expliqué wori ko wono expliqué daara danga waroon a mel ni ku yëgul li xew lijjanti li ngay lijjanti ak gaayen bi ak sa jëkkër bu jaree nga enregistré ko tegal ko Cheikh Diagne sax nga enregistré ko tegal ko Cheikh wala nga def ko piège boo demee ba ci moom nga taal sa téléphone Cheikh di déglu muy wax waaw kay waaye nekk fi di taltaleeka ŋàll ŋaale ko waxante mareem daal nag sama gaayeen nga sama xarit nga bëgg naa la waaye teeyal ndànk ndànk moom boo ko defoon kenn du la gën del def tànk waaw ndànk metti wut salaamaaleykum waa Lu TV ça va yéen ngeen ci ah macha allah seen liggéey rafet na trop trop macha allah day nuyu waala waa maîtresse tamit waaye ñoom it seen macha allah yàlla bu leen cattiku waaw daal li ma bëgg a wax série bi bu dawoon démb lënd bi ah, laa si bëgg a wax daan maram na def ndànk rek na def ndànk ndax laal la nduru ku ku ñeme daal laal la ñemewul waaw laal la ñemewul na ko def ndànk rek. parce que tam di attaqué nit ki loo xamante ne gisoo mu def ko gisoo mu wax ko loolu tam erreur lay indi waaw sama sañoon daal mu def ndànk rek si Lalla waaw ak xarit bi tam xarit Lalla bi na ko moytu daal parce que moom daal instant yi moom xam naa ne da koy da koy jéem a wàññi daal pour mu bañ a wax secret bi xam nga bañ a wax mareem daal bañ koo wax ñoom kii Euh, bañ a jàppale Lalla ci si kii bi xaritu Lalla bi si si affaire bi daal si action bi nii di waaj ñu koy waaj a wax ni parce que loolu tam bu amee buñ ko ko waxalee tamit mun na jur lu nekk mun na indil mareem yàq sëyam mun na ko indil problème am yàq àddunaam xam nga na def ndànk rek doucement na def ndànk waaw na def ndànk loolu daal laa am lu ma ci wax daal. waaw mais dañ nag moom na jéem a bëgg mareem ndax mareem nekk na gorom ba pare bëgg na doomam waaw ndaxte benn sëy tamit neexul nag mareem loolu laa lay conseil benn sëy neexul ku leen sama sëy neex na rek waxul lu am kër goo dugg kooku lu may dund ci këram moom moo ko xam ok merci loolu laa amoon lu ma dem wax maa ngi leen di sant leen këram jëriñ ngir jëf asalaamaaleykum waa Lu Xew TV siyaar naa leen ci bu ngeen nekk yéen a bu baax a baax waa Marème Diagne nag moom nii rek la ko nit ñi di bàyyi Marème daal nii rek dañ koy bàyyi Marème solol na laal la taxaw na ca fefi daal lay ay waay bi ñaareel moo lakkale ñaareel bi moo lakkale moo solole Marème Diagne daal lu ko dal rek yéene naa ko ndax dama fatte dafa fatte trop fatte lu ko dal rek yéene naa ko dafa fatte ah nañu may waay namay aawa yi nag ñu am jàmm nag nekk ci seen jàmm ak salaam bu nekkee seen jàmm rek mi indi ñu stress nañu may jàmm waay sonal nañu trop lakkal nañu salaamaaleykum waa maîtresse nam naa leen nam naa leen trop du ñaa leen dégg Lu Xew TV yéen ngi ci jàmm Lu Xew TV gëj naa dugg nag gëj naa dugg waaye ñàkk jot rek ak amul doom bu tawat mais lépp jàmm alhamdulilah yéen ngi si jàmm bu baax a baax waa Xew TV waaw man maa ñëwoon wax si ah, si euh, kii <coughs> ah, waaw Marème moom li laala def mais laala tamit am na lu ma xamal Marème tamit Marème tamit am na lu ma xamal laala de Marème Marème am na am na lu ma xamal laala parce que ah, am na lu mu ko wax. tey dund doy na xel acca nañ dem ba ci kanam incha allah après daañu gis lépp soobee yàlla incha allah nam naa la trop na yéen nga am jàmm bu baax.